من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد المكين وعلى آله وصحابته وخير خديمه وأمته أجمعين mbokk جوليت yu tedd daje ci bërëb bii di Touba Soumbédioune ci Dakar noo ngi leen di nuyu nuyoom jullit jëm ci ay mbokki jullitam di leen nuyu nuyoo taalibi Cheikhul Khadim jëm ci ay mbokki taalibi di leen ndokkeel di leen sant bu baax ci taxawaay bi di leen gërëm di jiital ci kàddu yëpp sant borom bi subhaanahu wa moom mi yayoo xeeti jant yépp julli ci ndawam li di yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi dolli ci moom salaatu ak salaam mu ci jabootu boppam àgg ci ay àndandoom ba agsi ci dëggee kanam ba Cheikhul Khadim ñu ngi ñaanal seen Muntaqa Bachir al xalifatul am li tariqatil muridiyya yàlla ko yàlla dimbalee wér na yàkkal ko lool ci sunu kanam di leen ndokkeel bu baax di jaar ci sunu kóllëre sëñ alxaaji bi muy nit ku jàpp kóllëre di nit ku fonk bis bi moo kañuy wax sëriñ Jiili Géey fa mu nekk ca biti réew terewul ñu jokkoo moom rek ñoo koy defal bis bi kon ñu ngi di nuyu nuyu kilifa yi ngeen àndal yépp ci liggéey bi moo xam muy mag moo xam muy ndaw muy góor muy jigéen ñu ngi dalal ak di ñaan borom bi gërëm ko di sant jàngkat xasaay bu fi fekk te lu bokk ci nun lim doon def ñu lu koy defal lu am ci mbégte lool bëgguñu woon sax ñu bàyyi ndax neexaay bi ak jeexin bi di ci jiital sëñ Abdul Xafoor Joom jàng na fi njàng mu rafet njàng mu dugg ci xol beral na yoo sëñ Moodu Xabaar ci njàng ma rafet ak teggin ak yar yi yàlla na yàlla gën a yàggal nuyu sunu jàmba sëñ Moussa Kalla mu baax ci zikrullahi bi ñu indil tey nga xam ni harmonie yu bari la ci dajale bu dugg ci xol yi yàlla yàlla fay leen yéen ñëpp te gën leen a dëgëral gën leen a yaatalal liggéey bi mu àgg fépp ci barke Sëñ Tuuba barke Maam Cheikh Ibrahima Fall di leen ndokkeel nag ci weer wu tedd ñu bokk tam yu weer yi gën ci noonu ndax li mu ci sëriñ Tuubaa fàkk xam ngeen ni sëriñ bi wax na ni sama génn yàlla defal na ma ci yàq muy génn bi ma génnoon ci Sénégal dem ci tukki bi la mu waxoon Seex Balla Faali Jeng dañu ko Seex Balla mu ni ko Mbàkke mu ni ko sama tukki bi bi ma ko tukkeegul génn góor mës a tukki tukki gu ni mel bima ko tukke amul mu tukke wa tukke mel kon na ngeen ma ci sant na yalla ba may tukki gi tukki bobu nak suñu borom ci nak yu ko tek génne ko mu wax ni li sabab bi yalla defal na ma ci ñet sababu ghaibati ya anallah, arada an anala minhu jaaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi yett yi mooy bi ci njëkk maa ngi génn ngir ëllëg sunu boroom jox ma daraja bu kawe ñëpp yi séet ci kaw te kenn du ma jot loolu moom jullit yëpp mën nañoo maase ci waat ko darajay Sëriñ Tuubaa tiim na àdduna tiim na fépp dañee ne ci tukki ko yàlla fàggale loolu muni diko ñaanal yalla may na ko ci tukki bi moy khadimu rasulillahi alayhi salatu wassalam muy liggey liggéeykatu yenent bi alayhi salatu wassalam bu amul noppalu tay jii lu nit gatt gatt xam-xam bu ñu bindoon lettre ni khadimu rasul moo ko moom xel yëpp jàpp sëñ taxa lañ koy jox kon jox la garab bob ba ca top nak wala tax ñu mirage suñu bopp def lu ñu mëna ñu mënul mooy ñun ñëpp bu ñu nattee suñu bopp suñu jaamu yàlla manqué na lool suñuy tooñ bari na lool suñuy bàkkaar bari na lool kenn maanul ci booy seet kon lu li ñu mën a fàggul aljana yi ëllëg lu jafe lay doon sëriñ bi ñu fàggul naa leen ci tukki bi ëllëg yéen ñi ma sopp yaakaar nag naa leen mën a ramb ci sama borom naa leen mën a tàbbal aljana ci sama tukki tukki bi bi muy génn nit mu génnoon ko ci circonstances yu méttee métti waxal na boppam ni na bëxlukum turan ala kattin badaa lii xabla an ara ridan mu abada nee na yeenaa leen ci coono yi ma dajal man Seexul Xadiim lu jiitu ngeen gis sama pay gii ma am mu mel ni ngërëm lu sax laa sama pay am xaw naa dee dat naa ci ay nattoo ci coona loo xam ni mburu dañu ko ci biir taal ñu jàqale ko ay mbokkam ci turu tukki bi ak turu liggéey bi muy liggéey yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàqale ko réew mi mu miinoon di Sénégal ci koo xam ni Mbàkke Bawol la feeñee mësut a génn dëkk bi tukki bi gënoon a soy ci moom ñam gànnaar ba gëstu ci ay téere delsi waaye keroog biñ ko génnee yóbbu nañ ko ba fu ñuy wax saboor ñu taxale ko climat bi mu miinoon xam ngeen ni sëñ Touba fi mu nekkoon climat sec la fa fekk ndax sahélien bi mooy foo xam ni dafay wow koŋ ngelaw kese la ci Mbàkke Bawol ci mu feeñ ñu yóbbu ko ci dëkk boo xam ni climat humide la fa fekk muy taw ci kawam neuf mois moom dong ci biir àll maa yombal ñu tàqale kooku ay doomi boppam bi muy génn ñi ci bàyyi ci mag fukki at ak juróom-ñaar la am muy soxna Fatou Touré Mbacke di taawu sëñ Touba ki ci féete ndaw mooy sëñ Baara Mouhamadou Lamine borom kuy nit ñeenti at ci la toll sëñ Touba wan ginnaaw juróom-ñetti doomam yoo xam ni ay ndaw lañ la àndaale guddi bi ngir yàlla yëkkati lislaam bi muy génn. amul kenn kuñ ko may ku ànd ak moom gunge ko ci tukki bi nee na dinay dem wéetal yi ma amoon yàlla sama borom la mi dara umpul ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak alquraanul karim ak gaa yu baax yi daroon yàlla ci bi ñooma gunge ci sama wëndeel bi rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabii wa ashaabuhu fil bahri hiina adul mu génne noonu génne nga di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar dëppoo woon ak bisu gaaw nekkoon bisu samedi ci la fi sëriñ bi jóge xam ngeen ni lu jiitu muy génn def na i'tikaaf i'tikaaf mooy fukki fan yu mujj ci weeru koor yonent bi daan fa def taxaw jàkka ji di ñaan di wéetal sunu borom ndax tuyaaba ju bari ci sëñ bi def na ko. ci jumaa yi daaru kutoof du sëñ Mbàkke Madina booba mu wut jege yanant bi rek su ngeen yësee sëriñ bi jóg wut ay wasila fa dem jaar fa jaar na ci wirdu Tijaan jaar ci wirdu Xaadir jaar na ci wirdu Saasali lan moo tax ndax yooyu yëpp yanant bee ko jox ay kàngam ci ndigalam te sëriñ bi xam na ni ku bëgg a àgg faaw nga jaar ci mu jug fu ne mu jaar fa ba am ngërëmu Cheikh Abdul Xaadir Jilaani am ngërëmu Cheikh Ahmadu Tijaani am ngërëmu Abdou Asan Asazali am ngërëmu saaba yi yenn saaba yi am ngërëmu waa ahlul badr ñoom ñëpp de làq naa seen ngërëm moo tax mu ne nag yaa nii siddohul Jilaani alayhi ridwaanu lazi alaani rabbi yaa nii siddohul Tijaani عمه إمام مبين الجاري رضي عني سبته أبو الحسن عمه إمام يخلد الحسن رضي عني خلفاء الأربعة أسطورة المقربين المقطعة رضي عني الله والرسول وأهل بدر أتاني سول من لم يكن أن يرضى فالكريم رضي عني اذا ليس يريد يعني يعني أنا صحيح على انه بابا kon mu jaar ci sóobukaay yëpp li ko taxoon a jug mooy àgg ci ngën gi mbindéef rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na boroomam moom sëñ Tuubaa ni ko laa taj'alanna baynii wa baynaka abad waasitatan siwal muqaddami sanad yow yàlla bul doxale sama digg ak yow kudul ca barrière or ba ka ca Madina Muhammadu Rasulullah moom rek laa bëgg mu nekk sama intermédiaire sama digal loolu mu dul wër nag bi mu demee ba yonent bu feeñu ko mu ngi ko feeñoo Tuuba Daaru Xuddoos ci jàkkay suñ Mbàkke Madina mu dëppoo ko 1894 ca feebar ci la sëñ dem ci weeru koor woowu dem i'tikaaf bi ñu cëpp ci néegam mu jàkkaarloo moom ñu cëpp ci biir jàkka bi yoon ñaar ñu wéet yaram ci bi loxoom laaj ko li mu bëgg sëriñ bi ni ko bi ma jógee di wut si sa ngërëm di wuti sama borom gis naa ne ñi ma la gën a jege ginnaaw bi ma amee ngërëmu ñi ma tudd léegi si yoox yu mag yooyu yëpp am na seen ngërëm léegi ci dox sama diggante ak si ci yow mooy asxaabul badar ñu doon xeex la yeneen bi bi xeexu badar ñu toll ñu trois cent treize ñoom ñooñu ma la gën a jege su ma sañoon nag xeymem naa bokk ci seen biir wala ma gën leen a xeej bi sax sës ci yow dina liggéeyal yarante bi ni ko li nga bëgg yombul loolu lu jaay la te njëg li jafe na te am na góoru yàlla yu la fi jiitu woon doon ko wut waaye li ñu ko mënul dañ faa doxe yàq la te yéenewu ma la nga yàq la ndax boo engagé ba koo dellu ginnaaw te dañ la génne ci sa biir ñoom teg la yi gën a tar te gën a métti te natt bu ci nekk dina mel ni xar mu ñuy fees te di ko ay natt yu yaram la ñuy wàcce sa kaw te di nga matal yëpp ba mat pour agsi si ma nekk sëriñ bi ni ko sàkk ma ruum gi waaye jom gi ak ngor gi ak fit bi mu ngi fi fekk yàlla daal mu ma fi wu ba ngir ci yow yaram ni ko des na ndax li nga bëgg ñu jaay la ko muy natt yi lay teg seet yaa ngi tuubaa du wàcc ci sa kaw ndax yaa ñaanoon ni tuubaa nañ na ko aaral te tuubaa aar nañ ko musiba du wàcc ci sa kaw fii ci tuubaa kon faaw ñu génn tuubaa bi ci topp tam mooy sa nijaay di sëñ Bousso bi bokk ak soxna Mariama Bousso lépp day xutbu juboo ak boroomam lu mu ñaan yàlla dina ko def te bu natt bi doon wax ci sa kaw bu la seetaan dina la ñaan ndax da lay yërëm kon faaw mu wuute bi ci topp mooy say at man ci ni juróom pour li nga bëgg yàlla loolu la ko jox sëñ ni kon baax na dogg naa ci yooyu yëpp conditions yi ma matal ko ndax ma yenu yenu loolu moo waral mu génn ci Tuubaa dem sañ ci Mbàkke Baari Jolof

di fi doxal seeni constitution yor lépp te sëñ Touba dem na ba créé une menace nekk benn menace ci ñoom tubaab bi ndax ni ko mag ñi toppee woon déggal ko ni bu laajee hëdd yi ñëpp kaaw dajale jox ko tubaab bi impôt yi day tardé sëriñ bi bu génnee du forcé kenn ñëpp duñ ko tey jox ko seen bopp bu yàggee ni tiit nag ni day def guerre ci sunu kaw la jëm si fekk na tam ay lettres yu ñuy bind tubaab bi di ruuxale ak a yàq naan bu pexeen sottee day def guerre sainte jihaad comme ni ko ñoom Alaaji Omar Fuuti daal daan defee comme ni ko mag ñi jiitu daan defee su pexeen sottee ci seen daw la jëm tubaab bi kon yëpp menace ci sëñ Tuuba la gën a dëggal nag seen jort ya mooy biñ ko wooyee Ndar te nanguwuta wuy ji ñu dellu bind ko ay lettre sëriñ bi wuy jiwul ngeen bàyyi séetale bi dégg waxtaan du ànd ak ay xew la ñuy bàyyi wuy jiwul ndar ñu woolu ko lu bari demul ñu yàq lu bari nag ci diggam ak tubaab bi ci ay wax yu ñuy wax ni sëriñ bi dafay denc ay ngànnaay lay waajal jihaad ba nga dal si seen yow tubaab yi jiit ci loolu xam ngeen ni ñu tollee ci 1895 bobu ci wéru août le 9 août 1895 ci bisu aljuma fekk na yebalon na mam ci amna Rakam borom bay tek maqaama bàyyi sëñ Cheikh Awa Balla ak Modou Awa Balla bàyyi sëñ Zubéeru sëñ Miqdaaf sëñ Abbas ak sëñ Andil mam ci amna dem taxawal ko ndar am fanweeri ak taxaw fa fitam ba ak jamam ja ak ngoram ja ak sulam ja keroog bi maam Cheikh la demee jotal leen la sëriñ bi wax ni leen sëriñ Touba ci boppam feeg yéen a ngi yor seen àdduna ba ko yoon bi ko borom bi dégg ak yarant bi amul ci yéen soxla lu dul yàlla niru ko ak yarant bi ak alxuraan leneen lu mu doon nag waxi yàqkat la ndax yéen yi waaru àdduna ngeen di xëccoo te xëccoo foog yéen soxlawul ci tubaab bi xamal ko li tax biñ ko woowee nanguwut a ñëw maam Cerno ni leen ndax moom ndigalu boroomam lay déglu te boroomam joxu ko ko ndigal nag léegi bis ni ki soo demee nee ko bettuñu ko am nañu ordre damani fuñ dinañ ko yóbbu directement gouverneur mu jàkkaarloog moom su fekkee dafa gàttal dinañ ko faax dox ci kawam indi ko par maam Cerno ni ba ngeen dajee ko loola waral ndar ci maam Cheikh na dëpp nag ci leen kon baax na ba ngeen dajeeg moom ñoom nag ci boobu jamono yóbbu nañu ay soldat pour ñu jël si sëñ Touba sëñ Touba lépp bu yàgg ndax boromam moo koy wax moo koy wax waxtu yi ci ji ci ci la ko bi di koy wax ko ci ni ko amsi wala anti wala tarsal haram doxal nga wi jam ragal kenn wor yalla garanti dal man nga def kon seigne touba waaj ya afa ñu koy jël ci ngir yam ngir sunu borom aar ko bi jox ko digal ni ko daga talif hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil dara gënu ko ci karange boo koy def saa boo tëyee quatre cent cinquante saa booy tëdd quatre cent cinquante da am loo dunde ak kenn mu laal moom la yonent bi jox sëñ Tuubaa ni def ci xasida mooy sa kaaraange sëñ bi jël xaraf yi xasbunallahu wa ni'mal wakiil gis nga nan ko doore xamidtu man yaxsimuni mina darar min kulli saytaanin wa jinnin wa basar xasida googu la sëñ Tuubaa wooy ci aljuma ji di xaarandi maam Cerno ñëw waaye xam na ni day bi guddi di jot ci la sëñ Tuubaa dajale njaboot yi tàmbali ñuy waxtaan ak ñoom ci nitu yàlla yi fi njëkkoon jaar fi ak li ñu defal islaam ci wàllu jihaad mu leen di fàttali mag ñi ba guddi gi sori lool mu génne ay kaasi xullal teg wargaam di attaaya di jox mag ñi amul benn pression te yéen ñi ñëpp xam ngeen ni buñ ni la suba da nga yëgul ci gendarmerie guddi gépp doo nelaw ndax pression kuñ ci woowoon ni la jàpp nañu sa njaboot ñu nga tribunal àtte nañ leen di leen di tëdd guddi gépp doo nelaw waaye Sëriñ Tuubaa guddi gi mu ngi attaaya def ibaadaatam yëpp sans pression jëndi njaboot gi defal leen waxtaan ak ñoom ca la waxee sama diggante yi rek tubaab bi laa bëgg dalal seen xel xam naa ëllëg laay dem ci tukki bi ma sunu borom diggoon waaye bu leen jàpp mukk ni li ma wuutale ak tubaab bi àdduna la yàlla sunu borom moo am lu muy jaay te war koo jënd daal di wax ni nitu yàlla bu ngeen gis bi mu ñëwee jéemoon naa yenu yen gi ma war a yenu yan suñ suñ baax waaye góor yàlla bu ngeen fi dégg bi mu ko yëkkatee àggul ci ay wóomam ci la xam ne mënu koo yem mu ni ko yàlla man sëñ Tuuba mii nag la yàlla dogal dinaa ne jàng yel boobu teg ko sama ndaalu bopp dox yenu ko rasulullah ba am na bépp di ko séen dinaa dem dinaa dellu si na seen xel daal guddi yi waxande yi dugal ci ay bagage yi muy yittewoo yëpp ko bi fajar gi di xotti ci la maam Cerno rakkam ji di door a delsi ndax xam ngeen ni ki ñu booleeg maam Cerno pour mu wan ko yoon bi dafa war maam Cerno teg ko ci aw ñal rek waaye maam Cerno sëñ Tuubaa jàngaloon na ko xam-xamu biddiw ci la tegtaloo ba muy agsi ci sëñ Tuubaa Mbàkke Baari Jolof la fajar jot ba mu ñëwee ni sëñ Tuubaa ñoom de sëñ Tuubaa ni ko Cerno mu ni ko Mbàkke mu ni ko dara matumaa wax démb ci tàkkusaan bi nga taxawee tubaab bi ci lu mel ni ab dëtt mbir melentaan bi dox sax maa ngi koy seen jàmm jàmm mu ne ko mbàkkee mu ne ko yëf yi àgg na koo xam ne wax dootu ko defar jëfa ci a tamal la yàlla tànn maa war a jëfal islam maa war a yëkkati sama sàng ba lam ci bàyyi woon muy islam na ñëpp toog ma dem te ñëw ñëpp am jàmm jàmm dig bi jot bagaas yi dafa tax sëñ boobaa duggaatul ci biir kër gi keroog bi mu yónnee maam jàmm ni ko andil ma valise ba ci biir bi ko maam ca mooy jëri day daw dañ abdul xuddoos nee na maam ca daa fëx bañ naan ba sëñ Fall dana xoolal bàyyi ceer na ni muy dawe sëñ Touba yónni ko ñu génne bagage yi sëriñ Touba bàyyi ko Mbàkke Bari Jolof ci gaawu boobu samedi tolloo bu 10 août 1895 fas wi mu war bi muy dem fas waa ñu tudd awlullahi ndimbalu yàlla ci la sëñ Touba wax xam ngeen ni diggante yi dafa weex ya mel ni nikel ci la sëñ Tuuba ak tànkam ya daal di yéeg mbalaan mi ñu lal ci kaw fas bi mbalaanu sooy mu vert la sëriñ Tuuba war ca kaw naf ñaan bi ca kaw fas wa jël loxoom bu tedd ba ci bopp sëñ Moodu Moustapha sëñ Moodu Moustapha am fukki at mu jël beneen loxo bi teg ci bopp sëñ Fall sëñ Fall ba am juróom-ñeenti at yu teg ay mu ni dégg naa leen yàlla dégg Rasulullah dégg ngeen seen bàyyi Cerno Cerno demoon gàngoor bu ñu xiif bu ñu mar bu ñu am jàmm parce que teggee Mbàkke ay noor yu am kattan am am doole te ku ñu mës a fiiroo balaa jant bee soo la sëñ Tuubaa ngi naa dem dinaa jël engagé wu boobu muy bisu gaaw sëñ Ibrahima Diop Massar nee na ko xarajta min jolofin lillahi fi safarin akrim bihi safaran xat xaasu kulla yahi xarajta fi sabti fi chehri rabihi duan bi jaysu sin wali jeewal jita laysa radi bi kokki xilta wa jita baxuluga wa fii سفينة البر حتى فقزا صدد لها أقمت بالنار حين تزيل بها باع ضلال من أهل الشك والفلد ثم ارتحلت جهارا في سفينتها تنهو دكاها باذن المؤمن ابدا سيد توبا دفا دين دي جابول ييب مام جامو دي جيم سي دك بو مينول دي جيم سي كلمه بو مينول war na ci noon am kattan te am njayeen saytaane te ay kanu ak i karabaas ak i sëbal ak i tiital sëñ Tuubaa wéet tundum wéetali koo yàlla borom mi parce que mu ne asiru maal abraar yi xiina asiiri wa zannal ida anni hunaka asiiri maa ngi dox man Sëriñ Tuuba jëm ci géej gi ànd ak noon yi di njort ci man ni dañ maa jàpp prisonnier te li ñuy njort amul bi may dox maa ngi ànd ak gaa yu baax yëpp yu damay wéttali ñu jàpp ko prisonnier ñoom tubaab bi maa ngi dox ngir dimbali ngir islaam keroog bi sëñ Tuuba bi génn bi mu demee ba tollu tund jeewal fala rajo yi koy jël si moom Serigne Touba am ngeen tey juddu jeewal dañ koy màggal fu Serigne Touba jaaroon tey dañ koy màggal bi muy bi koy jël si départ dajeeg ñoom nettali na ko Cheikh Balla Faali Jeng nettali na ko maam Cheikh Ibrahima Fall ko nettalil boppam nee na dafa toll ne juddu jeewal ngóor mag di Iblis saytaane Iblis ci boppam jëmm la def ñoom jàkkaarloo mag ma koy séenee mu ne Iblis keroog bi mu ñëwee di ponkal mu saay-saay jàkkaarloog naa may jëm ju tuuti muy tëj ko yàlla sama borom te ne Iblis doxal ñu ni ma ku fi mës a ñëw di wooteel yeneen bi xajuma ci yow sama ndaw rek laa yebal lu tuuti tuuti mu sànq la waaye yow sëñ Tuubaa xam naa ni yaay dernier rempart u islam yow la diine yëpp da nga tey sa loxo yow la yeneen bi di dégg da ngay moo tax sama digganteeg yow kenn doyu ma man iblis maa ñëwal sama bopp sëñ Tuubaa nee na ma ne doxal bi ko ni ko sama digganteeg yow kenn wa sama borom mi la sàkk sa tànk bi sama kaw dox ku ma sa dajal yaa ngi gën a tuuti ab tànk waaye yaa gën a gis tey jii ñu tàqali ko naa yow Serigne Touba wax na ko billahi faaraxtu nasaara jeewali wa xayrihi xat am bila tanaawuli tàqali ko naa ak nasaraan ya foofee ma tollee jeewal te yoruma benn yokkal mu bind xasida yi nga xam ni mu ngi ko tënkee inna ibaadi laysa laka alayhim sultaanun yàlla moo ni sama jaam yi ma gërëm ñu topp li ma neex. ñooñee yow iblis doo am ci ñoom pouvoir doo leen mënal dara koy yàqal bu mu doon sama jaam yi ma gërëm ci bopp sëñ Touba moom la woy nga dégg ko man ay yasa min ni laa inda ceewal iblis a is naa day ko boo fiyaa woon nafaa li xayri laahu xablu fi nari bi ëngi bari yi usuli kadari nafaa li xayri laahu fi ndakaaru kulla azan li jarabul makaaru alamani rahmaanu fi safina bi annani xadimu zil madina برأني الله لدى قناكري من كل جانب إلى المناكر أزهب عني الله في كرم أصاح قبل فارسي وعني خلبسا دعاني الرحيم إن الدوم له بما أعنى عن التصوم يسر للمنا لدى كبر بري من قاتل ما غاب عن كل ولي سيدو بعد يقاري فوفي دجيك إبليس قرن دانيال قرشا تدجيك li ko njëkk xamal ni yoon wi dina ci réussir moom sëñ Tuubaa takk dafa baax ci julit julit day takk léeg-léeg ngay jug diggante benn affaire di ko liggéeyante jàngal ñeenti faatiya tëj ko sa loxo raay ko sa kanam ak say nopp dox jëm ci mbedd mi léegi nga xam ci ngay mujjee boo rombee ni dégg ñaare ñu naan baax na jot na ca da ngay xam ni yow la ñu dox ak waaw da ngay xam ni yow la ñu dox

Ousseyn noonu cheikh bi jawri ñu ngi dalal maa ko yàq waaw kon ñu ngi nuyu sunu kilifa gii ñëw di jiital Pazal sëñ Boubacar Ndiaye wax na dëgg maa ko yàq nekkoon na ci équipe nationale Sénégal bu Scrabble ñoom maa leen di yàq ñu nit ñu baax ni li ma gën a jàpp ci moom yooyu yëpp ku ma sa bëgg sëñ Touba kon nag alhamdulilah bi ma fekkaatee fii ah grâce boo yor nga xaar yeneen ñuy dolli ndax dama ngi nuyu délégation bi mu àndal yëpp wuy si waa Touba Soumbédioune teew si fi loolu di ndam lu rëy ci ci man di contentement ci man nit ko bu mës a la loolu la la ñu xam ci moom baax rek ak bëgg sëñ Touba ak nangoo jàng kon alhamdulilah dara jómb la yàlla na gën a yomb te gën a kawe booba temps maa ngi joué ci nekk ci équipe nationale Sénégal esclave bi tubaarkaal la ko daan defandoo. waaw waaye yow ko muy xale bu baax bëgg lu baax bëgg seen ba yàlla ba yàlla jàppale ñu délégation bi mu àndal yëpp te ngeen ñoo fekkoon ñu nekkoon ci exposé di leeral euh, tukki bi nga xam ni tey moo defar suñu lépp muy génn li sëñ Tuubaa génn mu génn ci contexte bu métti bu difficile ñu dàqale ko ak njabootam yéen ñëpp xam ngeen ni ñun ñii kuñ ci woowoon ne la da ngay fanaani tey gendarmerie la woo guddi gépp pression nga yam doo dem sëñ Touba bàyyi ci juróom-ñetti doomam ñuy ay tuut tànk ki ci mag ci septembre mu war ñëpp ginnaaw ki ci gën a tuuti quatre ans la ko dénkaane njabootam nee na sama kër yi tas nañ ko noonu la bind sama numéro yi bind na na tas nanu samay kër tàqale nañ maag sama tas samay kër ci kaw gi may di ma leen te man nee na yeneen bi fu ma ko teg rek ba ñëpp ñi di ko naw xeex naa ko damay bëgg mu gën a féete ko moo tax mu ne musuur ya xalla la wal ëhlu an ni tafaraxa li matxi lisi angul matinu xasid fu ma teg yeneen bi rek ba nit ñi di ko naw sax la ma ko yéene da day mel ni ma xeex rek ma ko yéene lu gën a féete kaw loolu li ma koy tàkk ak li ma koy màggal ñu génne ko ci biir njabootu boppam génne ci territoire bi miiroon jëmee ko ci climat bu différent climat bi ñu jugee loolu rek mbir la ndax am na benn professeur bu ñuy wax le professeur Ogare moo joxoon xalaat tubaab bi ni leen jarul ngeen koy boobu ni mu mel ba tey boo ko demee da ngay ji ndax maa yomba àll la bu fàtt lëndëm danger képp mooy gerte boo ko wër sëñ bu baax ñu fa yóbbee. climat bi ñu fay fekk muy climat humide te bu jógee ci climat sax sahélien bu yàggee fële rek mën naa sot daal law na ko ñu génne sëriñ bi kon yóbbu ko ci réewu miinul woon nga xam ni bi muy génn Mbàkke Bari Jolof samedi la tolloo 10 août 1891 mu laaj fas wi awlul laahi waaj ci kaw jël benn loxo teg ci bopp sëñ Modou Moustapha jël benn loxo teg ci bopp sëñ Samba sëñ Modou Moustapha am 10 ans sëñ Balla 9 ans yu nekk ay boor mu ni dénk naa leen yàlla dénk naa leen rasulullah dénk leen seen baay jàmm ceex na njaboot gaa ma dem dañoo ni ko bu ñu xiif bu ñu mar bu ñu buur bu ñu jëxëm bu ñu saale da leen jàngal yar bu fekkee nag jàngal yar benn rek a mën am nañu yow waa ci fas yu tudd ndimbalu yàlla yàlla ndimbalu yàlla parce que wawula soo baawaat maanaam sooy mu vert lañ laal ci kaw dégg di fas bi dafa weex comme nekkal mu teg ci tànkam ya bàyyi ñëw ci réew mi miiróor ci fajar gaaw bi dëkk ma li fu ñuy wax tund jeew bi ngeen di maa ngi wax ni nit léeg-léeg ñu wuti ci ci li muy romb dina ci ah? jëlal rek ñeenti faatu ya jàng ko tifli raayoo jëm ci biir léeg-léeg nga wax ak kenn fekk yow lay doon mu ne ah c'est fini nga xam affaire bi sotti ah waaye ba gars yi baax fekk yow lay wax wala waaw waay fekk yow lay wax sëñ Tuubaa bi mu tollee tund jeewal benn soxnaa ko may ndox mu jàpp ci bi muy waat gis baax sëñ Tuubaa laa soxna si noo tudd mu ne ko man soxna njéenee baax

ak inna waliyallahu lazi nazala alkitaba wa huwa yatawalla salihin yàlla mi nga xam moo wàcce alquran mooy méngoo gaa yi baax yore leen seen biir nooy ñëpp bi seen njiit yi di ñëw rek njiitu armée bi koy jël si sëñ Tuubaa da koo wan ci mooy gàll juróom fukki bismillahi rahmaani rahim ñëwee mu nooy ñëpp moo ko ñun dañuy fanaan ñoom ñëpp ñu ko d'accord fanaan bu fanaan tudd jeewal bi mu ko jógee jaar kokki ko ci dem Louga Louga fa la yenn lundi bi le 12 août 1895 fa la fofu ci Louga ba yenn le 12 août 1895 le rew yépp da jalo ni da nga wara a woote guerre sainte ci ha moo tax yàlla koy defal bu baax doo violé koo dégg ñu la day defal dara yalla tamu fi yow la yow la doomu jàpp même waaraate boo gis sax waaraatee bi yoonaan xamagul dara ci yàlla waaw parce que yàlla dafa wax ak ñun wax yu profond ci suuf zuma dafa wax ni yàlla bi lay waxal ak jigéen ña mu ni ko qul يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اللي بيان waxal sama jaam bu ñu bari ay bàkkaar ka jàpp dama leen dàq bu ñu bari ay bàkkaar yàq seen jëmm fawee ko ba jàpp ni man pare naa ci ñoom déedéet man yàlla bàkkaar yi yëpp laay jéggale tous te man maa ko sañ waxam jëpp da ngeen di tàbbi yàlla dina leen muggal loolu tax metti kooku looy profité ci nga xam ni moom xamut lii ngay wax du ko jox message da ngay naxar teg ngeen ko muñu moo tax beneen bouche bi nañ ko bàyyi xel ndax yeneen ci bi nasir la waaye am basir la day dégg kon nañuy wax côté positif baax na trop ci woo lay côté positif c'est très important bi woote moo tax si Tuubaa mës tam nangu xeex par les armes par les armes non non non non Il n'a jamais pris les armes. Et pourtant, il a une réussite. Une réussite extraordinaire à travers le monde entier. Et pourtant, il n'a jamais pris les armes. C'est Touba Dion Amré. ce sont les chefs de file de la non-violence. Des gens comme Mahatma Gandhi, comme Martin Luther King. Ils ont prôné la non-violence. Et pourtant, ils ont fini par mourir par la violence. Mahatma Gandhi ko ko rey penyewaan ñuy wax Natural Borse moo nasionalis rey c'était mau parai indien moo ko rey le 30 janvier ala à New Delhi à la capitale indienne et pourtant et pourtant il prônait la non-violence et pourtant il a fini par mourir par la violence Martin Luther défendre ci taxaw bañ bi mu duggee ci benn train gis ñu wàcceeloo borom jant bu ñuul siège am ñu ne tubaab toog mu ni loolu du démocratie taxaw di ko xeex def ay réunion partout def ay congrès def ay tribune di yee nit di défendre la cause noire di xeex the racism in America di xeex ce qu'on appelle le aux États-Unis et fu mujj dee dañ koo góor moom it rey ko bi mu doon préparé fekk muy préparé benn réunion bu mu bëggoon a doon grève boo xam ni hébreu yi ñoo ko doon woote ci Memphis un américain bu ñuy wax Memphis fa lañ ko rey le 4 avril 1968 wax ni xalaat naa bis dina ñëw jarul nit ñu kenn dootu ko attee couleur bi waaye li koy attee mooy jikko ji. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. moo njëkk a wax ni nit ku ñuul kenn dootu ko àttee couleur góor waaye dañ koy àttee comportement jikkoo qualité bi njàngam xam-xamam da dañ koo àttee ah couleur góor muy jënd naa sax one day my four little children will lead in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. moom la ko wax dañ ko rey le ñi jaar ñëpp ci xeexa sax violence dañoo mujj jaar ci par la violence perte seen bakkan. Sëñ Tuuba wax lu important ay am pour def kerseen mu ne attention damay def kerseen mais bokkuñu ay forme naan ñoom li ñuy géré ñu ne ko luy sa mu ne maa guerre sur la par les connaissances et par la crainte révérentielle mais fexe ba ñëpp am xam-xam yi ci téere yi xam sama idéologie xam sama doctrine ba bind wax leen nit ku normal nan la war a comporté woo xam-xam laay def ci nit ñi ak ragal yàlla duñ jël lu moomul duñu tooñ buñ leen tooñee ñu jéggal leen tey jii réussite maam kenn amu ko ci àdduna waaw fam réussite sa tuwaam amul kenn ko am ci àdduna

du ma ko def mukk lu ma def lu mu dogal nga neex ñu ne ko mbindee fi yàlla sàkk loo séq ak ñoom ñett du ma ci tooñ kenn lu ma am bokk boobu façon ku ko defee réussir moo tax tey gisam li mu mën a dajale amul ci lislaam bu am bis bu ñu toll dix-huit safar ak foo mën a tënk dix-huit safar jotee tëli yëpp vide rue yëpp vide

màggal bu baax la ñu def économie daal di reboosté baax yéen nag ba léegi nag te wax naa ni ni économiste yi analyse dafa wax événement boo xam ne chaque année minimum mu def plus de cinquante milliards dugal ko ci biir économie bi kooku fekkoon du ma ko jiite bi wax ni yàlla jox na ma njariñ loo xam ni zahir ak baatin lay doon bala ñoo leen jënd bi ñu weex ñi ñu ñuul ñi national bi yëpp dañ xam solo bi àgg nañ ci xool Bamba Day bi mu toll tey nga xam ne chaque vingt huit juillet dañ koy màggal biir New York ñëpp àndandoo cent vingt cinq district jërëjëf sëñ Touba bi bokkul tàkk nga xam ne gouverneur bi sax day wàcc ne ànd naa yéen boobu réussite mooy lan ku wóolu woon yàlla mi su ko bokkaale dara liggéeyal yaram ji bi waaye nag nekk humaniste boo xam ni doomu aadama moo ko taxoon a jóg dimbali ñëpp moom lañu mës a gis ku bind wax yàlla ne ko waxul julli bi rek yem yem dane yàlla ku am buur yaa maa ne loolu wul yaa man yàlla ak xaw a dindi yàlla ne fekk ko dindi bu mu ko teel a xam jam yaa am waa yaa bëri leen dara ku am buur rek am am ci gëm ko yow yàlla la wàññi boobu grand moo tax kenn nit ko taxaw di dem fee seen bis bi sama yoon nekk bu ko waxee rek lii ko sëñ Tuuba sëñ Tuuba parce que yëpp dinañ ko jariñoo ndax mu liggéeyal réewam liggéeyal ko lislaam liggéeyal ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam te moom mi ko liggéey guddewul ci dara la nekk sëñ Tuuba soixante-quinze ans la dund trois ans yëpp mi bastion de l'égalité la wax mës na am loxo résidence surveillée mille huit cent cinquante-trois la gane àdduna ci Mbàkke Bawol def fa ay weer ay weer yu yëpp ko foofu yóbbu ko xurma mu àggalee fa gootoom sunu nopp dem fa toll ci 10 ans 12 ans bàyyam ànd ak njaboot gi dem Saalum wuy ji woote tafsir Mamba Diakhouba fekk Sir Mamba Diakhouba war a daje ak les troupes françaises commandées par Pinet-Laprade le 30 novembre 1865 fi ñuy wax la bataille de Paoskoto wetu Nioro Koulpate Badiane ku may wax la bataille de Pathé Badiane 30 novembre 1865 sëñ Touba ànd ca dem ngir nga fii que 12 ans ànd ay wéy nekk Saalum ba 1869 10 mu àndaat ak ay wéyuram di ñëw Paataar nekk Paataar diir bu gàtt bàyyam dem Mbàkke Kajoor sant ko mu rand nekk université bàyyam di ko jàngale mi teg ci un an deux ans bàyyam faat di yóbbu ko dekkal ñu teg ci un an yeneen bi feeñu ko ni ko jox naa la sa yoonu bopp bis ni ci tey muy al muridiyya mu woo képp ko nangu li ma yeneen bi dox man ñi jaayanteeg moom commencé pacte d'allégeance bi jébbal mu def pacte moom deux ans dem Mbàkke Bawol jóge ba sañ ci dëkk boppam mooy Daaru Salaam moom la njëkk ci dëkk ci année boobu ci lañ commencé di ko booleeg tubaab bi ni ko sëñ Tuubaa nit ñi dañ ko topp toppin boo xam ne buñ ci jugul dina daaneel suñu nguur tubaab bi ragal menace boobu jamono le président français il s'appelait Sadi Carnot moo jiitoon France en moo jiite France ba 1894 Sadi Carnot tuddee nañ ko ci rue Carnot moo njëkk a yónni gouverneur bi Clément Thomas ñu ko demal fexe ba xool ñu mbiru sëñ bi bu baax ñu ngi koy Clément Thomas ñëw indil ay téere arab sëñ Touba pour fotowaay ko xool bi mu ko le la du bel article nom ko président de France ni ils ont parfaitement raison je viens de voir un homme de Dieu très avisé très cultivé un fait intellectuel qui qui maîtrise parfaitement la langue arabe mieux que les arabes et ses adeptes sont prêts à se donner la mort pour e sa cause. Il faut qu'on fasse très attention à ce gars, très avis. Donc là, on français. France qui commence à dire qu'on nous freine ou on s'y trouve pas. C'est-à-dire qu'on dit a des gens qui ont dit c'est-à-dire y a dit le pareil. Mais dès que nous sommes, on a son histoire. Histoire bi ñu y a rey suñu bopp jàng ko ba jeexal ya ba loolu lay jaay xamuñu suñu bopp xam Victor Hugo xam Lamartine xam Molière xam Molière xam Malherbe xam Pierre-Corneille ñu nekk ci gis-gis xam Karl Marx xam Spinoza xam Hegel xam Friedrich xam Socrate Platon te xamul Serigne Touba mi nga am lu sauvé la loolu ñuy jaay Serigne Touba nañ ko xam jàngal ko suñuy ndaw ëllëg ñu xam ndono bi ñu am ñi ko xeex ñëpp en tant que président bu France dañoo dee dee bi a commencé par Sadi Carlo mo jëk a yónnee pour jéem frère ci Cheikh Touba lan la mujjee dafa génn en 1894 ngeen ko seet après Cheikh Touba man lu ma wax day mel ni mu jóori jëf ni mu 1894 Sadi dañ ko assassiné en plein public en tant que président de la France mu ci place xam exposition yi def

Félix Faure ca topp 1895 boobu ba 1899 la na ko rey maîtresse am as coroom soo xam ni ministre moo am jabar la ko ciy toppatoo sàcc jabar ji def tëjoo moom en tant que président scandale bi mag la ci France jël aphrodisiaque naan ko doo ci ëpp mu wér bibliothèque bi daanu seen kaw noonu la deewee yéen ko seet baax lool dañoo ñëw njëkk a xeex ah waaw waaw la deewee ay wala mu ko ah nga doon def adultère la président de France Mexico ñun fi yebal en tant ay gouverneur ak ay buur yi fi nekkoon ci Sénégal yi ñu korom nax leen ñu xeex seen bopp denc kanoo moo njëkk a xeex seex ngir weddi suñ Touba dañ ko empoisonné mu dee noonu la deewee maa torox ñëw ci magam duudu ma mbay ma mbay farloo moo nekkaloon tubaab bi d'abord di xeex sëñ bi di ko sonal di ko buusu ay sàngara di jël cigarette di ko tux di ko buusu te ko mënoon alxuraan la doomu daal daa mujj dox ci ndend jinne yi di wax di ñaan Louis Mouté mooy gouverneur bi mu oolu sëñ Tuubaa 1895 fale gouverneur daal sëñ Tuubaa wéy ji daal 1902 bi sëñ Touba ñibbisee am lam indil jàmm Sénégal ci la dem montagne bële ci Martinique dee fa ci benn éruption volcanique bu génn ray ko ray jabaram ak doomam yëpp 1902 Cheikh Tène li ma wax yàlla ko mu faa kenn ñu la daanal sëñ Touba tukki bii ma doon def may ci dara ñu amul te day defal na ma ci rasul le serviteur éternel du prophète Mohammed yàlla defal na ma ci ëllëg damay université dañu ma yaakaar mën leen a tàbbal aljana ci tukki bi laa tëjee kon tukki bu ñëwee wax ñu suñu bopp war nañ ñoo meraat suñu bopp war nañ cee def ndax lii di sëñ Tuuba baax tey nag ki ko woote woon day mag ci réew mi sëñ Fallou sëñ ko woote biir Tuuba sëñ Tuuba moom bi mu ko wootee ku ne sa kër nga ko waaye sëñ Fallou ko woote ah, ah, waaw bu ne ko dañu ko doon tuddee tëbaskiwaat suñ tubaab bi ñu wax tëbaskiwaat ndax day ne dañoo sos dara lu bees tëbaski man Ibrahima laa ko woon te bëgguma kenn ngeen sos bi daal daanaka bisu mbégtee sama borom laa ci sant di tuddee ko màggal suñu borom xam nga sëñ Touba wóotewul kaay ngeen màggal ma déedéet kaay ngeen mu màggal yàlla mi ñu sàkk la woon li ma defal dama koy sant ba xeeti sama bopp bëggoon ngeen jàppale ma ñu ko kon yàlla la ñuy li muy sant tam nekkul bàyyi ba am ndam di sant ba gars yi noonu la ñuy def da ngay gis sax ku am baccalauréat wala mu jàll maîtrise commencé na tamit arrosage ak woote bu amee mbégte rek sëñ bi baa nee na man bi biñ may génn teg ay natt ngir islam loolu lay sant sama borom li sant la yàlla cant gi ci berne li ko ci ganaar ba ci gëlee sëñ Moussa Ka nee bu ci kenn xeeb ginaar ko bu ñu kenn naw gëlee ba naan matu laa kon benn la sëñ Fallou kon njëkk jigéen ñi tam na ngeen góorgóorlu ndax jigéen seetlu naa mbirum ci islam lépp jigéen a ko njëkk xam ngeen yéen njëkk a jigéen yi Xadija ah si soxna ko ñëpp weddee xalaat yu maali neer ak xalaat yu maali bari ma xam-xam neer Xadija sakanat bil xalqi qaailatan lan yumsika allahu fi daarini la takimi wax moo dimbali yarante bi dalal ko bi mu jaxasoo tàmbali gis euh, ange Gabriel Jibril te nuyu ko Xadija fi ne ko lu mën xew yàlla dina la defal ndam yow am gàcce yaay dimbali yaa bëri teddin yaa bëri lu mën a xew jàmbale nit ñi tey nga xam ne am nga soxla su baax Anda ak moom yóbbu ko ci Ousseynou dañ tudd waa xata ibnu Nawfal xamal ko ni yaa yor yaram tukki fii la yàlla doon wax ci diine bal xati jëfee njëkk a dal rasulullah ma ngi saya fukki at ak juróom sëy bu sëy bu rafet gëral ko doomam yëpp jox ko alalam wóolu ko gëm ko jigéen ñi jigéen ñi njëkk a dee ci Islam. su may jigéen ñi bi ko di ko daw ngir jigéen baax yi wax alimatu sax yow moo ko jël nàmpal ko xanaa dégg ngeen noonu ñaata ngoog ñett xamoon ngeen ni jigéen yàlla xamoon ngeen ni jigéen yàlla moo njëkk a def bëyam ci màggalu sëñ Tuubaa bëy mi jigéen soxna ummi si la ko ummi si moo njëkk a joxe bëyam ci màggal bi mu ko jaaralee ci sangam ba sëñ Moodu bu soog bu sëñ Mbàkke bu soog ñu indil ko sëñ Mawla yi suñu yëpp ko sëñ Touba bëy ma dafa nekk bëy woo xam ni dafa am ñaari melo bëy yu jiir la joo bu ñu bëy bi dafa joo mooy day bari meew boo koy rek bu ñu bëy bi dafa jiir mooy buy jur ay doom doom dañ ko soxla bu xool ko rek la ni sëñ Mawla soo gàddee ko ba fukki fan ak juróom-ñett service bi ñu ko gàddee ba fukki fan ak ñett di ñu dëggal ñëw ñu safar màggal mu ne ko demal nga yóbbu ko ca muraay ca njaareel am na fa ay séeréer yor ay gàtt nañ la koy wekkeel xarum xaam dégg nga ñu dem rek ko xarum xaam mu indil ko sëñ Touba sëñ bi dafa leewatal mu leewatal ko mu ko def ko ñetti saa mi ndaw def ko ñetti saa mi ndaw mu ne ko benn bi jox ko soxna Anta Bale Yusuf soxna Anta Sarr bi benn bi jox ko soxna Aminata Kanni Yusuf muy wéjjul sëñ Abdul Qadir mu sëñ Touba. ni ko bi ci des jox fere yi taalibe yu mag bis baa nga bu ñëwatee da ngeen ma sant na yàlla sama borom daal ñaari kër bu ñu dendee fi mu ne yéen suufe ci deful nii ngeen def yéen a koy def waaw waaw waaw def a mën daal ñaari kër bu ñu dendee sama bis bi ñëw genn kër bi di toog ak doo gis yeneen kër gi di ko sàggane di koy toppatoo saa bu xëyee di gis li muy jiitoo di koy sàggane daal ni aljana buñ fa demee amul bis ndax ay jour ak weer yooyu xewatul aljana waaye du tere dañ fa àggee sama bis bi ñëw yàlla dina leen dolli seeni xéewal ñoom waa aljana bañ naan ko lan loo xew ni bis bi ma sëñ Tuubaa doon sant ci àdduna moo ñëwaat kon bis bi dara melut ni moom sëñ bi jot ko ci tumuraanke jaar ci xat-xat yu métti dem ba jël si yéene ko Sénégal attention dafa wax ne su ma ñibbee na nekk jaxel képp ku ko bokkal sama communauté communauté biir nga i jaamu joor yi ilaa xaw nii wal takfinaa yawma jam'il xalqi niiraana. salaamaaleykum dama la damaa bëgg ñëw jox ko addi sëñ Samba waay ñoo leen jox ko addi sëñ Samba itam nag ñu wax ilaa xawmi saadatana wal takfinaa yawma jam'il xalqi niiraana ku bëgg sëñ Samba tax yaa ngi leen di wax fa ñëw jox ko addi sëñ Samba. اترجوا إلى أمر سعادتنا وكفنا يوم جميل أخميرانا فضلك التومي شمل الفراغ للمزنين خلف في مزرعة حكمه فضلك التومي شمل الفراغ للمجرمين خلف في مزرعة نبهتني أمس تلقيها وما تنبيها ومعرفة وزمن في حق اسهار والشفقة التسليم على نبي محمد ñu ñëpp ba mi nekk xale ndeysaan di ko dégg bu màggal a sàcc noonu la ñuy dégg. moo ko moo ko moo ko bàyyi ci biir Fall. ñoom lañ daan dégg ndeysaan ak ay sàmm boobu yëf yi demewul nii de waaye ku leen yeewoon danañ xam ni sëñ Tuuba amul morom sëñ Tuuba amul morom gis nga bu amoon ci dëkku naar yi bala ñu koy jot dañ sopp lu nekk dinañ ko daj. yalla defal nako mu muy sunu taw bii tax sëñ bay jaxé dañi sëriñ ba jar xëy ni mes jubtu ko àll ci wéy di laaje kay wër ba am téeméeri ak mu ngi nii njariñ la jar laxasuy rafli ke tifa ka mar ngir bëgg ko gis ba dé xam jot la it mi ngi ni no boole nak bi sëriñ ak lii njariñ ci lu bir te kenn réeru ci ay xam lu màgg ngi nii am sëñ Tuubaa ba noppi nekk sa biir mbokk c'était pas évident sëñ bi mënoon naa nekk ba ginnaaw amoo ñu koy wëri wallaay la mu togg togg ba mu sotti mu yéene moom képp ku mu bokkal réew yi ñoo leen di jaay yow ba tax ku jubóoteeg sëñ bi du ma xaw ma koo mën a jubóo ndax moom zéro violence violence amu ko lépp am njariñ képp la wax nii fil barri wal bahri za nafain bila darari nee na yàlla moo ma dimbali man sëñ Tuuba géej gi dinañ topp sama ginnaaw jéeri gi topp ma li ko waral njariñ yépp laa am te ko àndal dem quatre heures mu nga gis ay gone lool ba ko ma sax weer ak lay jariñ balaa dem quatre heures su la dina xay da ngay mujj rek sëriñ bi nag ñi dama leen di jariñ di leen gis dara lu moom léppam njàng amul la ba pare yàlla jox ko barke boo xam ne ñëpp ci dugg te moom coono képp la ñun ñëpp ah, barakatul islam yi ndax lii aqbala wa man xalam nii fi tabaaya ku jëlaat la nee na barke yàlla jox ma ko man sëñ Tuuba te képp ku bañ sama mbir yàlla dina ah nga gis ci bi ñëpp ci dugg ñëpp sëtëm yi ñu ci bari tëdd rek loolu kenn mënu ko fay jëlee ñuy tëdd rek ñu ñëw ñu ci leen jox te ñoo leen di wëli daal ci barke bi ñuy waxtaan ak jamono su ma koo soor ci biir barke bi fi ne benn maa fay may benn ndax may jox weer ci bis la ko yàq ndax waxtaanee sëriñ bi donc ah fu ma démissionné jàngale professeur espagnol laa fu ko démissionné xam lii mënuma fay kon sëriñ bi li xam ni ku ci tax bi dootul tàggoog taw loolu ma nekk boo gëm ko wér wér wér te noon na te noon na bu ngeen ma gëmee te nekk bi ma digle bàyyi li ma tere te wóolu dinaa leen defal fii li di dëkk ngeen di dëkk lii li wóor di sol ngeen di sol lii li wóor di lekk ngeen di lekk te kuy wëri góor ngeen rey ko dégg ngeen. ne góor boo fi gis lu wër a rëy bu defee quatre ans cinq ans ba war a am leen saaga lay def di moo ñu bett di ñu saa graay yi nangam ko di wax ci moom xaw saaga di ko doon ñu bett duuram. sëriñ da lay defal nguur boo xam ne jeex da lay dimbali ci tedd say doom ci tedd say a mooy fay bi yàlla ko ci sëriñ bi mu ne man barke bi may am ak ñi mu jaamaar lool pouvoir bi nekkoon ci mu àddina nga xool tey jëkkëb sëñ Tuubaa bii mu tëdd ndar gële mu jaaroo ndar nekkon capitalu sénégal ci ñepp xam ngeen ndar mage na ndar ak li mage touba deux cent vingt deux alors la ko wax ndar ñu ko fondé mille six cent cinquante deux ndar tey ah touba suñ touba gis ko taxawal ko fekk muy and ak kese mille so ko quatre vingt huit soo xoolee différence at yi deux cent vingt ñaar téeméeri at ak ñaar fukk juróom ñeent la ndar nage touba tey Touba mooy deuxième ville économique du Sénégal dina xam ne yàlla fekk analyser loolu nga xool ko xool leen tey ni Touba ku tiit daw dem fa lu waaye di wut wuti ko puissance yi gën a rëy ci àdduna bi tey dañ koy wuti solution Russie ak Ukraine bi ñu songantee rek xeet bi am na ndaw yu fa jóge ñëw di ñaan ñaan ah Je xam nga ci bi position waaw position Canada deuxième États-Unis bi troisième Chine bi quatrième Brésil bi cinquième Australie bi sixième Inde bi septième Argentine huitième Kazakhstan neuvième dixième Algérie waaw yaatuwaay yu ñu si bokk sonkanteeg Ukraine te am engouement boo xam ne moom la ñuy wax satan deux satan deux bi ko dóoroon ci France balaa nekkatel France yëpp nekk doo bi jaxasoo dañoo dem sukk ña suuf sañ mun taxa seen ndaw ñu fay jàntoo Proche-Orient fay dem boo jugee waa Asie fa la ñu jëm waa Europe fa la jëm waa Occidentaux yi ñëpp a ngay dem di seeti seen mun taxa dëkk bii saa bu crise politique amee ñëpp dem di wuti solution te bu dara xewee lan kenn di ko mën a la ñuy joxe kenn di ko mën a joxe te def benn bruit amul toog fa di jënd lépp loolu muy sëñ Touba moo tax dañoo war a weesu gaynde gee julli ci géej géej wax li nga xam ni logique la mooy xool bi sëñ Touba xam ni xam ne fii mu jaaroon ci Dakar sonne bi fu ñu waxoon nañ dem tey ba waa pak bii sumbe bi def ci baax di sant sëñ Touba ci gàttal doo ko gisal ci Dakar bii mu sonne woon nga xam ne sama ñaari fan yi ma fanaan Dakar saa su ma ko xalaatee damay bëgg jël ay armement ngir xeex ak tubaab mu ne waaye yarante bi moomay fee ñu naan ma jéggal leen yàlla la fay ko ma xam ko ci mosquée yi Afrique de l'Ouest ngi ci Dakar plus de vingt six milliards yaa ngi koy masalan bi jëlaat deux hectares yi ñu doon sëñ Touba ci kan jal joo mu ne su ko fàttali koo day am lu ko metti tey jii ñu jox ko ci suuf su yaakaar ay hectares di jumaa ci gën a rëy di fa ndoddal suñu borom di ko jullil suñu borom mu am ko ci biir centre Dakar te li gën a yéeme ak ñi muy sonne Dakar sëñ Bassirou woo nga ne àdduna ci ay doomam bi muy tukki sëñ Bassirou tey day dem bi sëñ Mountakha di doomam moo ñëw ubbi ko di jëmbi sëñ Touba ubbi jumaa ci biir Dakar loolu c'est la logique c'est la logique léeg-léeg nga gis ku nekk biti réew mbiru sëñ Tuubaa met nga te kat ngay weddi ak ràmmu te mu lay ràmmu balaa dara xew ndax pour nga ñibbisi ci sa njaboot da bàyyi ba màggal nuyoo ñu wàññi vol yi bii nga gaaw profité ci wut sa biir ñëw ci sa njaboot sëñ Tuubaa dimbali na la xaat yow parce que màggalam la ñu woote nga am ci loolu loolu logique la. boo xoolee tey ñun ñëpp jullit la woon makka mooy bërëb bi gën a teg ndax dafa juddoo dafa gane àdduna mooy gën gi mi dee comme la sëñ Tuubaa doon liggéeyam pèlerinage bu koy def ci aji màkk gàtt gàtt bu ñu dajalee jullit yëpp pakistan yi dugg ci biir marocain yi dugg ci biir égyptien yi dugg ci biir algérien yi bokk ci sénégalais yi bokk camerounais yi bokk ci du ñu dépassé millions cinq Touba di mystère boo xam cinq millions lañ dañ gis sëñ Touba bi ñu sant borom loolu na jàngat te dañuy wax ci mbedd yi duñu rayante seen dëkk yi te nag bu doon màkk loo consommé da nga koy fay da ngay jënd def naa màkk defati loo jënd loo soxla da nga koy jënd ci fay Touba dañ lay saaku kaay lekk te yàlla tax bisu sant suñu borom kaay lekk te yàlla tax loo ci consommé at bi am na sax ñuy yor seen téléphone kaay woote te yàlla tax sama crédit ah déedéet loolu lépp dafay wane rek fay ci suñu borom fay sëñ Tuubaa ndax li mu daj ci moom ak li mu sonne woon ci turu yaram bi ak liñ ko tege ay coono day yàlla fay loolu nag suñu ndam la ñun Sénégalais naa di fii ngeen nekk dégg ngeen ko ndax saa euh, bis bii xewee am na mbokk bu ma ko fi dee léegi waa kër Cheikh Seydil Hadji Malick xam ne ñoo ko moom ñu ñëw def ci lu ñu mën ak lu ñu mënul loolu mooy diine waa kër Cheikh Saad xam ne ñoo ko moom ñu def ci lu ñu lu ñu mënul waa kër Seydina li nga xam ne def ci lu ñu mën ak lu ñu mënul tax ñoo moom bis bi su ko defee murid def ci lu ñu mënul ndax bis bii suñu gis loolu nag mooy li nga xam ne mooy diglu Sëriñ Tuuba ndax Sëriñ Tuuba mës na nangu ay appartenance li mës a wax mooy man maay kii héritier bu le prophète Mohammed paix et salut sur lui te yonent bi bu ko doon njabootam yëpp ngay boole ci benn moo tax mu dégg ko wax ni zimaamu wara asri la dallahi fi yatti wa wara rumtuhu min maali aada bi kon kër gi benn la yàlla faj aajo nga baal dafa am benn kilifa bu ma dégg bu ci démb wax est-ce que sax dama koo dégg mu ne si aju maay dafa ñëw ci Tuuba naan ko bi damay ragal sa am problème ëllëg mu ne sëñ Tuubaa ni ko Sidi Aji Malik looy tiit looy ragal mu ne ko dama ragal seen njaboot ak sama njaboot béjoo ëllëg mu ne ko Sidi ci ragal dara yàlla defal na man sëñ Tuubaa yow Sidi Aji Malik sa njaboot ak sama njaboot ay kal la doon ba bis bi ñu ko ajal loolu jërëjëf kay am na jafaay bu am te njàng kay ni yàlla mooy dëttu maam kumba binta ak maam maam kumba binta am am naa am nangu yàlla da koo may juróomi doomi góor ku ñuy wax maam ndong nga bëy ci joor am ak ku ñuy wax maam paane am ak ku ñuy wax maam maam am ak ku ñuy wax maam ibrahima joor am ak ku ñuy wax am ñii jébbalu fii ñii jébbalu fee loolu tax maam maam ma am na bi mu ñëwee yàlla gën daal di seet seen Aji Maalik mu bàyyi ko Ndar ñu ñëw fa nekk dafa ab biir def na fa juróomi dafa toll ci koy góor suñuy ndox maam Rokhaya Ndiaye yore nag ci jamono yooyu dafa Serigne Touba ñëw di seet si maam Koundou Binta am na fekkaale boo demee ñu wan la fi ñu toogoon ñoom ñaar. keroog Maodo dafa tëj ba jël kaamilu alquran jox ko sëñ Touba wooye ñaari bëy ci seen diggante yóbbal ko sëñ bi sëñ bi xool bëy yi muuñ tontu ko ñaari bëy yi alaaji Maalik moo ni ko hadiyatun moo jibu hattilaafu mahabbatin yaayuhal hubaabu adaama rabbuna lana habla lisaal wa kufana saral lazi aada wasaal sëñ Tuubaa wal ba liggéey bi ni ko jazaakumu xayral jazaa wahaabu wa fi saqwal widaadi laa tartaabu wa kayfalaa wal mustafal mujaabu imaamuna wal xitmalaa nahaabu lu ñu waxante mooy Maodo dañu ko lii ma la jox dafee la tax ma teg ko gis naa rek lu baax fu ñu àndee saytaane dugg seen diggante am lu mu yàq noonu jéem a yàq seen diggante ba bëggoon nag duumu kafe yi ma la dégg nga téye ma ko téye ba man ak yow na la yàlla fay gën di fay ci wax nga rafet kii nga ma ak loxoom ànd suñu ànd ba rafet ak suñu askan loolu mooy kon fii jaar fii dégg ah bisu sëñ bi ñu naan gisal murid bi dégg bisu alaaji Maalik gisal loolu moo tax keroog bi taw ba wàccee liggéey sëriñ bi dafa yebal délégation boo xam ne dañoo dem Kaolack ndax alaaji Abdoulaye Niass mi jur Baye Niass ci jamono boobu la wàccee liggéey alaaji Maalik génn ak jamono boobu mu yebal fukki nit léegi yéen ñi may demal seen dem àjjana suñu borom dogal na ko yéen ñi may jàllee. suñ gàtt bu sa taxaw way ñaari kilifa yooyu taalibi suñ Tuubaa la te way na alaaji Maalik way alaaji Abdoulaye Ñas ca la taxawee naan yaa salmatal fii diinina al islaami min xale ay xarnay hëmatil alaani a sayidayni al aalimeyni naasikayni muslimeyni li hadratil alaani samsun la samsuna ana samsin haabata te bakal waraay te kaasutin aslaami muy woo nag lëndëm ci Sénégal ndax ñaari kilifa yooyu de te moom mi leen di woo di jooy seen yem ba

boole ci xaalis boo ko nee su ko leen sii di Assane Ndiaye yaay borom ndam Maodo di Bamba Bamba di Maodo ku leen di féewale xam nga loolu wit la ngir mëtti Mbàkke maam maaram mooy nday Ousmane bàyyi Maodo maa ko xam sa asu Mbàkke may sutu maam maaram mooy nday ñàmme lii ko am Maodo nga yor sariyatul mu tëddëra Bamba nga yor xaqiqatul mu nawwara Maodo nga yor mbir de boo boole sart ya Bamba nga yor dëddoom nga boole maya ya man njàng mi mooy may ci leen fi dekkal ci sunu maaram buy dekkal maam maaram sunu maam ju baax ja wàcc na sëtë bi yàlla ñu dugal aljana amina amina ne leen amina yéen gaa yi bàmbaal Maodo ngeen la ñu kon